Alpha Doudou Sané ngi nii l'adversaire de booy Mbour moo war a bëre xale bi nga xamante ni moo bàyyoo koo Mbour ñu koy wax Boy Mbour ndeysaan waaye Doudou Sané ma nga bàyyee ko fi nga xamante ni mooy écrit tay ci nga bàyyee ko ca peggi ëmb seen peggi Tyson 2 ñooñu ñooy ëmb xale bi tey indi ko ndeysaan mu war a dajeeg waa Mbour yaakaar naa ne Arfan xale bi bu simee ko kenn du laaj ci ana mbër bi mu ngi nii dégg ndeysaan nee na affaire bi doole la ba mi ngi fecc ak wóolu boppam ndeysaan Doudou Sané ngi noonu ndeysaan bàyyee koo tay si nga war a dajeeg booy mbuur hey bi la bis ndeysaan Doudou ngi noonu Arfan jëlal ma suuf ndeysaan waaw mais du delloo ziar. buuru seeram tàng na de. waaw gis nga namoon lii rek. lan ngay yëg. ma tàkk ngeen rek. Ah. dañoo dispersé woon ba tey. Ah. waaw ñu doog a. waaw daa a tijji seen waaw gis nga. mais ngi fecc rek. waaw sant bi yàlla bu wër. Ah. dama gëj a bëri nag dama nam takk sama ngeen bi. sama couple lañu. mais ba nga koy tax loo yëg ba nga koy tax loo yëg. booy booy mbuute dama ko jël. ma ne ko da jël volume. mu ne ma dijji dëgër ko gën. <laughs> waaw baax na dañ xool. dëgër diji ñaari ñaari yëpp la ñu boole ay ndaw la ñu du ñu jël dara naturel rek ah gis nga normal de lan lan mën a xaar ci ki nga xamante ne mooy Doudou Sané lamb dëgg waaw ma duma ko bëre ma daan ko ay ca du dégg du xoolal indi àndal ak moom Doudou daa jug ndeysaan waa Diofior topp ko waa Fatick topp ko waaye xale bi waa Pikine topp ko xool ko li mu indi xool ko li indi laa ilaha illallah nee naa leen lamb dekki na Arfan Arfan lamb laa def damay xeex damay bëre ah. lu mu laaj tey noo ñëwee ñëw ànd ak Malika rek mais tey dama ñëw sa koñ di direct gis waa koñ bi ñëpp génn bilaay aw ma seen fay bilaay wallaay yàlla na leen yàlla defal jàmm lan a xaar ci yow tey waaw lu lu neex lu doy waar dinañ xeex dinañ bëre di ñaan yàlla defal ñun daam rendez ci kanam léegi léegi waaw l'adversaire da ñàkk jëriñu mu ngi nii de ki mooy Jackson xale bi moo bàyyeekoo yëmbal buun Malika waaye xale bi moo bàyyeekoo géejawaay waa géejawaay yëpp ko moo ngi nii Jackson ndeysaan Jackson bégg naa la. fay naa la Jackson tey noo ñëwee. jaam salaam. lan la mën a xaar ci Jackson. lépp bëre xeex lépp. ah Jackson. la. maa ngi lay lay fay. Jackson tey am nga combat bu rëy ndax ki ngay dajeel. ñàkk jariñu bis doon ko dépassé. waaw lamb la rek ñu moom pare nañ lépp waaw bu jour ba dañu xam ne lamb yi dépassé wuñu lamb la comme yeneen lamb yi tolluñu fenn waaw diisul si xam nga day xeex day bëri yaa ngi suuraale loolu. ma gën a neex a neexal day gën a gaaw rek. tey lan ngay indi tey. ah loo indi tey. ma ak salaam dañu naan yàlla suturaal ñu may ñu ndam a jëf moo des mais du wax wala yàlla suturaal. lan bëre. waaw li bëre waa bëre xale rek. Mhm. doon xale waa Malika yem ma ma bëre ko si dal ak tee ma jàpp def lu ma war a def dem ñibbi. mais ma gis ni signature bi yen ñaar da nga jëloon wax ji bàyyi ak moom dafa mel ni lii nga doon xaar tey. laa doon xaar tey mooy jëf ma na maa war a jëf ma ma foo xam ne tey ay toog di communication ay wax yu bëri yooyu noonu. yaa ngi dégg su ma toll sa làmb ma man damaa war a jëf ndax waa Malika Kër Massar rek ma yeb. bilaay tey da nga indi ci stade bi. waaw lu ma indi si bi yaa ngi gis doon xale rek ak waa Malika yaakaar ma Malika Kër Masaan Mbey de Fass benn barak dañ ma yaakaar bilaay te ba muy génn dama ko laafee teel a dama la xale yi di langu oto mbalit di dem noonu la demee nag oto mbalit ak fas yi ñëpp ñoo ñëw ndeysaan bilaay dóoru yi combat dóoru yi oto yi ndaw yi mais fan nga jëm étant fu ma jëm ah. moy gars yi mooy déedéet mbay Diop bu géej waay ñëw xool ko mu ñu mbëri yu mag lañ soxla ñu may ñu chance ñu taal leen ñu taal loxo ñu may ñu chance ñun fa lañ ah, waaw. jël sa adversaire jël xeex bi def ko faveur nga bëree ak moom tam. Ah, waaw jël jox nañ ko lépp ci Fallou. da koy bàyyi ak làmb ji rek. ama naxante la rek sant yàlla yàlla moo ñu suturaal tey yàlla nañu yàlla gën a suturaal santaat nañ bu baax moom nag il n'est pas démérité quoi làmb la mbër la champion la daan naa ko mais du yaa fuus comprendre bu baax waaw xam nga di ko jégaluwaat bu wér làmb la ñu ngi santaat ñëpp di sant waa Pikine yëpp. dama gis arbitre sifflé nga nga dem ci suuf sa adversaire di xeex nga ne yow ci tànk man maa ngi ci lépp mbabarkat laa damay def lépp làmb la rek lépp nu ma mën a def pour daan ko su ma ko mënoon buuf mu daan sax dama koy def yàlla moo ma suturaal damay santaat yàlla bu baax di sant ñi may jàppale ñëpp waaw jaajëf. mais daan Moussa Dioum numéro 2 daan nga xamante ne mooy Fourrière fan nga jëm. du si gars rek. grand frère nañ ma may sens. Bour Sine bu ñëwee baax na Tapha bu ñëwee baax na. waaw. daan bëgg naa la. ku daan bëgg naa la. yàlla na yàlla suturaal. kontaan naa. ziar na ma leen. assurance maa ngi kottu ba pare waay. Ah? la waay ci loo de. maa mu lépp jàmm. naa naka waa Mbour. fo. am nga jàmm am naa si bu baax a baax kay. maa na ne réew mi nañ la. waaw maa leen raw nag moo waral ma ñëw tey jii. lan mu sa xamtaan bu tooy. naa fii nii. si arène ma daan fi jël boo xamee kenn ma su koo daan. maa la wax loolu. léegi balaa ñoo ñëw foofu. wala boog ñu continuer foofu na foofu dafa neex. bëgg nga daan jël boo xam ne kenn mësu koo daan. kan nga ciblé. Moussa Ndoye laa bëgg a daan bëgg koo daan Gris 2. bëgg koo daan Gris Gris 2 mel ni. Zos Zos ma tàllal loxo may ma nax ndax sama mag la wala Alioune Seye numéro 2 ñooñu daal ku ci ñëw mën naa la koo daan jël bu la jaaxal. assurance moo assuré boppam. ah man ngay waxal de poids lourd bi bëree lépp moom ngay waxal de. Gris 2 amoo dara looy mayen ci Gris 2. regarde moi xool ma. akama la xool. lan laa war a ragal ci moom. du bëre du doole du fit du dara aw ma war a ragal ci moom. te bu yàlla defoon ba avance bi dugg sa loxo bi taxaw naka nga koy waajee pare nga pour lépp. noo damay dem mbuur laay dellu rek dénk waa mbuur combat xëy matin soir di entraîné ñëw pour fas ne jàpp ko daan ko moment bii nii il man ak moom ñu bëre. yaakaar dafa mbuur am lu mu fa def ki nga tudd léegi. ki ma tudd kan la. giri de yaa ko tudd yaa ne ma bu avance bi ñëwoon. am lu mu fa def waa Mbour di ko naxarlu ba léegi di wax na jour boobu sama frère dafa nekkul woon carrément. bu ko duggaatee maa du fa def mbir. non non manu faa duggaat def fa dara déedéet. bu ko koy fereen. waa Fass xam nañ ma. da nga koy fereen la. xam nañ ma bul fàtte ne jaar naa fa de. Ah, waaw. kon vous xam naa lan la ñuy bañ de. xam naa lan la ñuy bañ. lan la du ma ko wax su ma leen daanee pare laa leen koy door a wax ah, incha allah. tey kan nga indi. Boy Mbour moo war a bëri ak Doudou Sané ñu koy ñaanal tey ji yàlla may ko ndam lu see dugg yi xale la boo xam ne dañoo war a topp suñu ginnaaw pour ñëw parce que mbër yu mel ni ñun xam naa rafle Mbour. may gën a lancer appel si sa micro di wax ne promoteurs yi Dakar yi nañ ñu bàyyi xel bu baax ñun waa Petite Côte. ci ngeen bokk lañ bokk te dañ cee bay suñu waar tey su ma duggee fii ñëpp dinañ na diw mu ngi nële am nañ ay rakk yi am talent yoo xamante ni yàlla xam na buñ ñëwee dañuy mobiliser dañuy feesal stade mais bu leen gars yi tàllalul loxo duñ mën a xam ñoom ñooy ñam ñu leen di lancer appel ñëpp ñu ñuy commencé jox sang. solennellement wala. solennellement bu baax a baax. billaahi doy caaxaan de ay booyang fa yoo xamante ni boo laajoon gas mi xam na ci dara ñii ñoy ménagères yi booy yi nekk Mbour. mooy ay booy yi mobiliser combat boo ñëwee làmb ji nga boo ñëwee sama jouru combat mooy bëree Gambien stade bi dafa fees ba nit amatul fu mu. ñëwal làmb bi nga xamante ni drapeau magasin la semaine bi booy mbuur yi ñooy bëri te làmb yi day fees del ñu ñëw Balla Gaye Boy la ak 40. kuy 60. Balla Gaye Boy Niang li may wax si rek su daanee kenn du ne kuleet duñ na sansa dañ naan moo nekk favori mais Boy Niang bu daanee mooy làmb ji nee na topp mooy fi mu war a fi mu war ëllëg. ibbi na bunt bi dajji na ko kàlli dara mënatu koo xaj li am wax naa ci benn micro léegi ne leen na ko yaayam ñaanal ci combat bi te buy dem na ko ñaax papam bu ko ñaax. waaw yaay moo gën a gaaw a daw yaram ni ki papa papa day ñëw ne la manu nangam nangam yaay da lay woo déy la ne doom jur naa la fi ma la war a jur góorgóorlu tey jii ba andil ma ndam su ma ko doon conseillé dama naan na ko yaayam ñaanal buy génn. combat bii di ñëw. sama xarit. siyaar naa la. delloo ziar waa BTV maa ngi di ziar bu baax. tey nga indi sa rakk Boy waaw indi suma rek di ko yàlla yàlla may ko ndam. Mhm. tey nan fulla ak fayda ngor. ñu dajeeg ndaanaan. waaw Kuli Fadlin ñu nangul ko ko tamit c'est un grand champion confirmé je pense que ne tey pour mën a am ci moom résultat sax dañ koy nangul loolu ba pare la yàlla dogal ci moom c'est un grand champion. mais Boy Mbour tamit c'est quelqu'un bi nga xam ne mu ngi def ay preuve am ci biir lamb mu ngi nekk ci yoonam ñu ngi ñaan yàlla yoon boobu yàlla na continuer tey ci kaw Doudou saane mu daan Doudou Sané jëlee bu rëy allah. gars yi jël favori bëre bi jox ki nga xamante ni mooy Doudou Sané est-ce que santaan nangu na loolu. waaw xam nga làmb moom bu xasee ba taxaw les avis sont partagés. chacun est libre de sa pensée dañ leen di nangul seeni i xel ak seen i xalaat mais li am solo rek mooy suñu gëm-gëm bi ñu am ñun te gëm-gëm boobu lañ fi ñëwee gëm-gëm mboobu la ñuy duggee ci digg géew bi te gëm-gëm boobu aussi moom la ñuy ñaanee yàlla mi nga xam ne moo am ndam mu may ñu ndam incha allah ci kawam. Sandan yaakaar naa ne am na combat. bon euh, les pourparlers sont en cours ah gars ñuy waxtaan bu baax a baax. instant bi j'ai de propositions yi nga xam ne tey su ma mag Bombardier mu ngi avancé bu baax a baax. donc xam naa ne incha allahu rabi proposition proposition bi nga xam ne moo ci gën rek incha allah dina ko saisir muy diggante Ablaye Ndiaye ak ki nga xam ne nii tamit mooy Libidor am na ay propositeurs yu ciy wax benn bi moom avancé na de trop je pense que ne d'ici quelques jours incha allah dinañ ko finaliser. ñaar yëpp xam nga dama toog génn ci combat ngeen dégg ma wax ne bu ma sañoon jeunes yi laay continuer di bëreel et tey aussi bu ma sañoon ñi nga xam ne dañu gëm ne ñoo gën a saf si làmb ji ñoom laay bëreel. ndax tamit làmb loolu la bu dee jàmbaar nga danga nga war a biir jàmbaar yi di def différence man bëgguma combat bi yomb si suma carrière boo ma suivre ma suma am combat bi yomb te ba tey jii soxlawu ma ko je le toujours li ma dese si làmb dafa bari il est vrai que j'ai connu une mauvaise loolu sama ginnaaw la nekk xam nga je revenu ci li nga xam ne yàlla dénkoon na ma ko démb ak barke démb muy doole di condition physique di xel mu màcc ci bare parce que ne xam ne téléwu ma ko lu ma man la incha allah ci kawantanu yàlla ñaari booy yooyu yëpp ku ci taxaw dama lay daan bu ñu bëggee sax ñoom ñaar ñëpp nañu tegaloo. ma daan kenn ki jël keneen ki daan ko incha allah ci kawantanu yàlla. xaar santa bu ñëw comme ñëwoon contre Rose Jàmbaar. bu raw boobu mooy ñëwaat. ah. bu ëpp safara boobu. mais santa la moo tax mu yabu ci mbojj booy yi bëgg xale yi. non du question yabu ci mbojj booy yi parce que tamit on est une génération confondue. tey ñun suñu génération am na ci ñi nga xam ne calcul bu bëri tax na bëggatuñu bëri suñu biir et moo ne doole xaarul kenn jamono ji ñuy am doole di yëg suñu bopp di am wër jamono jooju lañ war a moo tax man aw ma jot a toog di xaar kenn comme booy yi ñoo fi nekk aussi bëgg ut yoon pour dem ci kaw naa leen tàllal loxo rek ku ci am chance am yoon ci man nga dem mais xam naa ne yoon boobu du gaaw parce que du ma leen may dara. doo leen may dara déedéet di daan yaakaar naa dimanche bi ñoo xam nga li fiy xew. Ah. combat bu mag di dox ci diggante Balla ak Boy Niang. waaw ñaari mbër yooyu tey boo ñu doon wax ci ñoom. grand combat. des lutteurs de talent ku ne xam ne tey Balla Gaye c'est un grand champion confirmé du lu ñuy naatable euh, ki nga xam ne mooy Boy Niang tamit nekk un jeune bi nga xam ne mu ngi nekk ci yoonam gëm boppam am lu mu bëgg ci làmb donc c'est un bi nga xam ne combat bu neex lay doon mais nag je l'avais dit nee naa la combat bi tey bu ñuy seet favori Balla Gaye il reste le favori incontesté de ce combat là léegi nag favori tekkul yaa man tekkul na yaa daal mais booy xool tey jii seen parcours ñoom ñaar statistiques yi ñoom ñaar tey ji la logique voudrait que tey ki nga xam ne mooy Balla Gaye mooy mu nekk favori mais nag le meilleur gagne na leen yàlla defal jàmm may wër ñu bëre si jàmm ak ki am ndam xam ne Sénégal moo am ndam ki ko ñàkk itam xam ne lépp ci Sénégal lay yem. mais mais ñëpp xam na ci mën bëre macha allah tey boo doon indi Boy Niang mu war a bëre ak Balla Gaye tey bu doon yaa koy indi. Hmm. lan nga koy digal. waaw en suma conseil ci làmb jooju constat rek laa ci maanaam analyse rek laa ci maanaam te analyse bi ma si joxe mooy que ne tey Balla Gaye il reste les foofu rek laa ci man. mais xeex bi am na ku mu arrange ci ñoom ñaar. voilà dina am un xeex mënul ñàkk si combat bi mais waxoon naa ko la fois passée combat la boo xam ne ci biir naxante lay doon ku ne xam na ne booy ñaa ci dam yee lay bëree ci ay ndoxtu lay bëree ci biir ndoxtu yooyu nag heure boo ci juumee différence mën na ko def reste à savoir aujourd'hui est-ce que ce Balla Gaye que je Boy Niang il va réussir à le tromper comme ni mu trompé woon ay moromam c'est là où se la question et cette question là j'ai pas la réponse. kontaan nañu yow. jaajëf jërëjëf Paul maa ngi lay ziar. ana ci loolu. waaye sant yàlla. naka la kër Moselle. <laughs> Paul baax na waay waay. waaw sant rek. d'accord Moselle moom ñun ñëpp ñoo ko tuddandoo mi tuddandoo mi tuddandoo bi Moselle ñëpp doon tisooli. Ah. xam nga man dama see gën a garaaw rek nag. mos ngaa dund lu non rakala mosee bu doon rakala kees du garaaw quoi rakala mosee sonalu de affaire yi moo yaa ma gën a rek. pompe bi bee ma sonal pompe bi moo ma moo ma sonal quoi parce nooy naa ko wante pompe à gaz bee ma gën a rey waaw. dégg naa ñaan nga ndox lu ne bi. ah dégg naa ndox ak lu ne ñaan waay soodu naa de wàccu naa quatre fois xaw ma cinq. kon bàyyi la lu may tooy waaye. waaw tey koo indi. Ah? indoon sama ñaar rak ñoom laa di woon quoi tey pour ñëw gunge leen non Fourrière nag ñàkk na laa moo demee noonu quoi a bëre nii yàlla nga yàlla defal ndam waaw aussi tamit di lancer waat message bu baax santan nekk ndax xam nga combat du yàqu si man voilà doon ah, na pare na santan na bàyyi signal dama bëgg lu doomu aadama yi wax rek maa mu nekk loo xam ne da nga koy confondre quoi parce ñu ngi koy man bëgg a yombal lépp moo tax man bu man bu bëree rek wallaay asim man pare naa combat du yàqoo ci man. wax ko ko. santa man ndaw laa damaa toll ci bëre yow boo bëggee combat bi fukk pour mu yomb ci yow man bëgg naa ko benn pour mu yomb ci man kon du ma ko yomba parce que xale laa bëre moo war dama am samay naataango yoo xam si la xam danoo ñu ngi bëre kon man damaa war a bëre pour dabu ji leen quoi kon du ma yàq kon pare nga. pare naa léegi kuy wër di bëre kay. bu doon tey tey tey. al waay. gis ma wóor na kon Santa na jàpp yow pare yow na nga jàpp moom pare waaw ma wax na moom pare wóoru la. non Santa moo parewul Santa man maa gëm ne moo parewul quoi nee mu ñëw rek wax ak yi normal gars yi fay ko fay ñëw bëre wax na man moom pare naa barke yàlla Kudu Santa. Kudu Santa sax pare na. waaw nan nga sa adversaire nan nga bëgg a bëri. bii mbëri am combat bari na xanaa ay góor a soog ñoo amul combat ma juumul ay jorron. ñoo amul combat assurance bi amul combat ñoom ñëpp pare naa pour ñoom. buur. ñoom tey seen deux pare naa pour bëre ñoom ñoom ñëpp waaw. ñooñu waaw benn pour bëre ak ñooñu. ay man ay ku tëgg loolu. ku tëgg loolu ñeneen sax xam nga man Grand Yoff ak Kayar ñoo ma xiif sama combat moo gëj te benn ma wax la ñaar pour arène nationale bëree gu ma fi rek. xanaa mbapat mbapat. mbapat laa bëree boo man mbapat laa fi bëree waa li tax ñu wax bëre doon bëre ko bëgg Arène Nationale da bëgg naa trophée sama xamtaan. danaa war a ñëw. non foog leer nañ voilà. ayca li bi doon. ayca ñoo fa de. dégg naa ngi lay ziar bu baax. borom la kala ma <laughs> ñoo far. wax nañu bëgg. wutaloo combat. moom wax nañu ah, wax na li mu bëgg. waaw kon baax na. man jëm. yow tul tul gi laa ragal xam naa li dafa waxoon bàyyi